tout ce qui ne tue pas plus fort mais damay tëb yenn étape ñëw rek ci sa dese yaay perdre nit ku toll noonu ci sa àdduna sa yaay fan la toll woon ci yow ak ban place la doon occupé léegi bi nga perdre sa yaay lan la la def. Euh, bi may ñàkk sama yaay dee ci mbetteel rek lay ñëw man bi ma koy ñàkk ci sama kanam nii la laa ko ñàkkee quoi dafa waxtaan ak man mi ngi ci feebar xam nga nga am sa yaay yàlla dimbale la nga jëlee ko sa kër papa indi ko sa kër. soo sañoon nga dund ak moom euh, man daanaka sama yaay vingt cinq ans dunduñu ci benn kër ñaar fukki at ak juróom moom sama kër papa la nekk man ma génn nekk ci biti vingt cinq ans dunduñu ci benn kër donc yàlla dimbale ma ba nga jëlee ko ci kër tey dugal ko ci sa kër soo sañoon mu dundaat ak yow lu ëpp vingt cinq ans mais yàlla dogal dundu fa ñaari weer deux semaines la fa def le vingt neuf novembre la ñëw le 14 décembre mu daanu ci salle de bain bi yàlla def mu am fracture ñu opéré ko opération boobu moo ko yóbbu euh, metti na nag mais da ngay dëgër ndax li tax mu metti mooy sama jabar moo ko assisté ak man ak sama doom sama taaw ak sama sœur ci ki ma topp ñoom ñoo fa nekkoon ci néeg bi te ñu ngi wax ak moom normal ñu defal la nga reer mère ñoo ngi reer bàyyi la léegi bàyyi ñu tibb yooyu lañ doon wax te mi ngi doon tontu nice ndogalu yàlla ñëw ñu woo ma ne ma kaay sama maire bi nangu lekki ñu ñëw nekk ci affaire yi pour mu lekk pour kii gis nga ko ñu ma gis ne man sax xawma lan moo ma wax loo ne ma sama doom sama taaw kaay jàngal sa maam yaasin ba tey dama naan lan moo def loolu ci sama xel lu tax ñu war ko jàngal yaasin man ba man loo dee bi yëpp loolu mooy ñëw sama bopp toujours lu tax ma ne paap kaay jàngal sa maam yaasin te d'habitude ku toll foofu la ñuy jàngal yaasin te man moment boobu fooguma ne fa la toll après mu ñëw jàngal ko yaasin bi muy jàng yaasin sama sœur mi ngi fa moom it dafa asthmatique la sama soxna moo doon tibb nii di ko may muy naan mais benn moment ma gis muy changé après man tamit ma ma xaw a ñaaw njortu quoi ma xaw a ñaaw njortu mais dama ne non kii comment rek la comment la quoi bon ma ñaaw njortu ñaaw njortu après ma ne garaawul lii daal comment man tamit ma jël sama ay lawraat commencé jàng ma toog ci lal bi bi sama sœur bi di ma wax layti euh, da ngay wàcc nii nga ma ne ko non euh, moom ni ma gis nii crise na dafa crise mu ne ah, ma ne ko dafa crise kon il faut ñu yóbbu. léegi nag bañ koy bañ ne ba ma ne dafa crise dañ koy yóbbu sama sœur bi ne ma ne préparé li ma génn te ay jigéen kese fane ay jigéen rek ñoo fi nekk ma génn ci guddi gi te couvre fa la tombé. nit yëpp tëdd nañ ma fëgg sama ay dëkkandoo ñoom ñu ñëw ñu jàppoo ko dugal ko sama oto ñu yóbbu ko ma ne sama sœur bi kañ dem nañ àndaale dem boobu man xam naa ne maire bi dog na ñu jàpp ko dugal ci oto bi sama sœur bi ànd ci ma ne sama soxna toogal sama sœur bi yow nañ dem ñu dem ma ne ko kaay toog ci kanam ñuy téye ko fële parce que góor ñi ñoo ko mën su su crise bi bu ko yënga bu kiyee buy nooyi ñoom dinañ mën a ma wax rek après ñu ànd ñëw ci hôpital bi ma njëkk a wàcc dem ci médecin bi ne ko xam naa ne sama waajur laa la indil te dundul génn na àdduna léegi mais sama sœur bi bu mu ko xam parce que dafa feebar mun na ko yóbbu ci yeneen état donc ñu diil mu jox ma benn ordinance ñu ñëw yaa wàcce maire bi dugal ko ci biir mais loolu yëpp mise en scène boobu yëpp euh, dama ko doon defee ak xel mais après da ngay xam ne lu metti moo gis nga suñ borom balaa mu lay teg métit gëm naa ne da koy natt ba pare ba nga àttan ko ma ma ma ma jël kayit bi génn ci biti sama sœur bi dugg ñu àndandoo tiim maire bi kooku ne génn leen bu fi kenn toog parce que médecin bi daf ne kenn du fi toog génn leen ma ne ko kañ dem toog kooku moom mu génnaat ak benn ordonnance ne ana layti faal Daado Ndiaye am dama leen jëndal leen ko ordinance bi na gaaw nag mais kenn du fi fanaana dañ ko fiy téye ba suba fekk man maa wax ak moom. ma jógee moom hôpital di ko yóbbu bàyyi fa sama doom mu assisté boobu jox nañ ma caabi morgue bi ba ma jox ko sama doom mu war a ànd ak ko war a yóbbu ci morgue bi ma delluwaat man ak sama sœur sama kër pour récupérer carte d'identité mère bi pour ñu dugal ko ci morgue bi. bi may dellu ci yoon bi sama beneen doom ba ma dellu ba déposer sama sœur bi na ko may ma ma daw jëndi garab yi bi may génnaat. bay jub hôpital bi ci la ma woo moom ne ma sa jabar daanu na parce que dama ne daf ne ma ana mère bi mu ne mi ngi fa mu daanu waxatul nooyeetul deful dara ma na waat jël sama jabar defaat ci oto bi indi ko ci même endroit sama yaay ci salle bi ci morgue bi ñu koy waajal moom mi ngi fii mu mu comment moom tamit ñoom ñu ne ma nañ ko defal loo xam ne day nelaw mais suba la yeewu kon xaar ko nga yóbbuwaat ko kër ga mais damay tiit sax mu yëg ne. ñooñu yëg ne yaayu Leyti Fall ma ne ma ne ñi fa nekk ñi monte garde moom bu mu for ci ne sama yaay ngi ci morgue bi. noonu laa leen jëlee man sama kër ak sama grand yi ñu continuer ñëw ba bay jub suñu kër sama kër papa ma ne eh ana ana ordonnance su maire bu mujj bi sama grand bi na ma ah. Adama moo ma ko joxoon keroog mi ngi kër ga ma ne ko mi ngi fii ma ne ko nañ fa jàdd kon récupérer ko parce que dañ koy laaj noonu lañ jàddee sama kër papa ñu jàdd moom mu wàcc sama keneen ki wàcc. ñoom ñaari jigéen des ci oto bi grand bi delloo si waat ñëw ne ma ah ordonnance baa ngi mu téye ma geestu ne leen xam ngeen lan la yàlla def na lu gën bon koñ bi nag ñoom bu ñu yuuxoo rek koñ bi parce que maire bi ni mu meloon ci koñ boobu quoi. jigéen a ñëw foofu ne ma yow sa yaay moo ma téye ci sama sëy ba tey ne ma su ma toogee sama sëy ba tey sa yaay la sa yaay man lay def nii jooy xam nga loolu dafa dafa nga gis ku nekk di ñëw di def seede yu mu daan def dum mu nag nit yi. donc loolu nag pression boobu après dafa dafa metti metti waa metti woon na nag mais munuma ko jooy xaw ma lu tax nag rongoñ munul génn mais dama ko jooy sama xol aussi tamit ay jullit lañ nattu bu ñëwee faaw ñu jéem a dëgër c'est vrai que ay nit lañ mais ñàkk yaay moom lu surtout ni mu ma bettee nii dafa ma bett maanaam demu meer bi dëgg la dee ci mbetteel rek lay ñëw mais fooguma ko woon dama jàppoon ne parce que maa ko jëlee këram moom maa ko fa jëlee maa ko wax ne bas meer doy na nag yow ki la fi téewoon moom dem na kaay ñëw nag sa kër ñibbi si nga toog yow da ngaa war a toll fooy lii laa bëgg a lekk lii laa bëgg naan fa nga toll mais tollootoo di daw ci njaboot yow retraité nga c'est-à-dire maa ko fa jëlee man sama wax moo tax mu ñëw mais da doon wax man mënu ma bàyyi sa kër papa bi di dem fenn fii laay toog mais ndekete boobu yàlla namm na li mu namm ah yàlla na ko yàlla jéggal te xaare ko aljana metti lu metti na nag waa lu lu doy waar la daal waaw ñàkk waajur moom bu góor ba ak bu jigéen mais bii moom dëgg dëgg moom metti na quoi metti na trop trop trop. Euh, man mii di di wax ak yow sax maa ngi am chair de poule te leer na ma ni li may yëg moom la internet yi di ñu seetaan yëg mais lan moo indi sérénité bi lan moo indi calme bi lan moo indi dal gi ndax ku ne xam ne ne un parent est irremplaçable kenn mënu ko remplacer mu desoon nag ci sa benn waajur parce que ñàkkoon nga ko góor mu desoon ci muy jigéen. mais lu tax dal gi ba tey rek dal gi ñun dañ noonu la xalaat ñi la xam dañ noonu la xalaat mais ku ñëw ci dëj bi li dalay dalal sourire sourire boobu du sourire mbégte mais sourire je vais bien la mais lu indi woon loolu loolu. xam nga dal parce que da wax naa ko benn jour ma ne sama soxna li tax man mair bi te man xam naa ne moom bi dëj bi weesoo man mi yor sama soxna xam naa ko feebar na fi feebar boo xam ne choc boobu moo ko def noonu bi ma demee ci psychologue bi. bu ñu demee foofu daf ne kii choc bi moo ko def noonu donc choc moo ko def noonu choc moo ko moo ko jàpp mais man dama ne ko man sama ñaan xam naa ne yàlla nangu na ko ndax bis bu ne damaa tàmm ci sama làmmiñ yàlla nañu yàlla may dal dafa mel ni dal boobu la ma yàlla may ci période bi muy bi muy jël maire bi ndax dal boobu même man daf ma jaaxal daf ma jaaxal fan la dal boobu jóge ci man mais toujours damay bëreeg sama xol léeg-léeg damay dugg néegam xool ndeysaan damay toog fi mu génne ah damay toog ci suuf jullee foofu ñaanal ko ne waaw mais munoo ko natt daal cest di dire fooy natt métitu ñàkk waajur foo ko natt ci métit foo ko natt rek weesu na fa yow yaay am dal rek ah yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljana mais daal ah lu metti la daal metti na trop trop metti na waaw dëgg la lu metti la mais yàlla moom lu mu def euh, jàmm ci dara waaye sant yàlla te ñeela dikk na lu tax mu dikk moom mooy bi sa waajur bu góor génnee àdduna daf la fekk tournée à l'international su ma juumul te yàlla may na la loo ko dëjalee ñu jóge waat ci bii nga jël yéene bi nga amoon yóbbu sa waajur bu jigéen ci sa kër même bu dee ñaari weer la ba defit def na ko kon théâtre fay na la sagal la ci ñoom avant ñuy dem. waaw loolu tamit sant naa ci yàlla ndax euh, mënoon na am ñu dem. te duñu fekkee dara dara ci sama parce que am na ñoo xam ne tey léeg nga dem ci ay armeer nga fekk fa nit kuy bale di lay tame xamoo ko de mais da nga koy romb mu leer ne ki tëdd fii am na lu mu kii kii am na lum ko bëgg fay mais amatul fu mu ko ko fayee lii rek la ko mënal da ngay dem ci armeer fekk ku toog ci armeer di lay barab bi di lay di bale di sotti ndox di raxas karo yi di mooy da liir ne kii moo tax ñu góor góorlu ci suñu waajur yi ci biñ leen di gis dafa am solo ci biñ leen di gis donc euh, doyaluñu nag ci ñoom ndax bu ñu sañoon ñu gën a fekkee suñu njariñ naam mun naa wax ne lekkuñu dara ci suñu njariñ ñoom ñoom lekkuñu dara mais sant yàlla ci euh, biñ ñu juree fiñ ñu war a juree teg ñu ci yoon tey ba fu ñu taxaw ñu xam ñun suñu bopp ñu xam ñun ñooy kan loolu rek dafa doy alal donc loolu daal lañ leen di gën a sante mais bu ñu sañoon tey Euh, wax dëgg yàlla suñu suñu ñàkk suñu alal ñoom dinañ ci lekk ba doyal bu ñu sañoon dinañ ci lekk lekk suñu ñàkk dinañ ci jëriñu balaa balaa ñun sax ñu ciy jëriñu mais nag suñu borom moo ko bëggee nii euh, ñun ñu ñaanal leen rek ah ñu ñaanal leen waaw mais euh, ñoom 15 mois lañ rawantee 15 mois lañu lañu la ñu rawantee 15 mois pile la ñu rawantee Euh, loolu tamit euh, noonu la ko suñu borom bëggee daal mais lu metti la daal metti na trop.